asalaamaaleykum suñu mbokki internet yi ñu ngi di nuyu baax di leen ziar di bëggee ñuy suivre si Wassare Lamb Wassare TV euh, di baal la ñu àq di baal ñëpp àq tey nag euh, ñu ñëw fii si Kër Moussa seen si koo xamante ni champion la ñu nekk koo xamante ni wax dëgg yàlla ba mu bëreeg maama la bi gisaatuñ ko mu nekk koo xamante ni ci defar mais bu léegi gaa yi ñu ngi koy wér mooy ki nga xamante ne moom mooy jokkal bu euh, ci koor lañ nekk te koor nag boo ko nekkee wax dëgg yàlla am loo xamante ni moom lañu war a def bien vrai que chaque jour dañ cee war a nekk ndax ñaari jaamu yàlla du koor du koor kese du benn jour kese waa nag ñu ngi lay bëggee bu baax baax di naan onze billahi mina seytaan rajim bismillahi rahmaani rahim di naan ginnaaw bañ sante yàlla di julli ci yenent bi sallallahu alayhi wa sallam di ñaanal suñuy ñaari waajur fañ tëdd gënal leen fi ñu jóge ñu ngi baalu ñëpp ak comme que dañoo nekk ci weeru koor di baalu ñëpp àq di baal ñëpp àq di ñaan yàlla ci barke weeru koor gi mbas mi nga xamante ne moo dal àdduna suñ borom jëlee ko fi muy coronavirus di naan gars yi ñu respecté cinq barrières yi xam nga di naan gars yi daal ku nekk li nga xamante ne moom la ñu état digal moom la ñu médecin yi digal ah ñu sàmmonteeg loolu noonu di ñaan yàlla yàlla waaw jëlee ko fi daal ñu feebar yàlla yëkkati leen waaw ñi nga xamante ne dalu leen yàlla musal leen ci ci barke Seydina Muhammad. am Eh, hmm. ah dañ koy dund comme ni ko jullit yëpp di dundee rek mu nekk weeru sell mu nekk weeru promotion ci ñun jullit yi waaw weeru koor moom dañuy woor comme ñëpp waaw di ko sellal di jaamu yàlla gën koo yokk kay waaw noonu koy dundee. mbër bu ah, xanaa mbër du nit. mbër dafa wara a woor am na ña nga xamante ne. ay taalibe Cheikh Ibra lañ duñ woor ay mbër lañ ñooñu seen gëm-gëm la mais ñun dañuy woor parce que ñu ngi sant ndax ku dund daaw ren fekk la fi ko da ngay sant weeru koor dafa bokk ci ah, ponk lislaam ci ci charia la bokk kon dañoo war a woor waaw ku woor tamit sa compte bopp nga wooral ku woorul sa compte bopp la tamit waaw. boo dee mhm. mhm. euh, mbër bu wóoree. Mhm. waaw mbër bu wóoree moom benn séance rek li ñuy wax réveil musculaire ngay def boo ndogoo ba pare takk sa daal daw longue distance charge tuuri parce que mënoo woor ba pare bëgg def yenn mouvement physique yi loolu mënul nekk. waaw benn séance daal ngay def xam nga boo waree xëy liggéey tamit nga xëy liggéey parce que weer yaagul mënul mënul wàññi ci yow dara. noonu la demee. koor pour man day purifier nit day wàññi baakaar xam nga parce que ñun dañoo mooñaale ak baakaar nit yàlla da ko mooñaale muy tooñ. waaw kon weeru koor weeru promotion la lu bari dootoo ko gis doo déglu musique xam nga yu bari da ngay julli respecté ko parce que tey sama classe gi bu dul weeru koor pour nga respecté waxtu juróomi day jafe waaw pour ngay xëy di saraxe fii nii xam nga maandu toog jàpp sa njaamur weeru koor rek ngay profité ci yooyu noonu daal. di def lu baax waaw. Jokalante si loolu yàgg na nag de waaw boobu maire bi gaañoogul sax waaw loolu yàgg na trop sama yaay moom ko doon forcé nag. Mm-hmm. Mm. Euh, non dama doon fàtte nag dama doon fàtte ne maa ngi ci koor quoi. Ah. des fois bu mu àndoon ak maire bi nii ànd ak moom marché nii ci jaay ko du buy yeeg affaire yooyu noonu mun naa jël sax di lekk te du ma yëg ne damaa waaw damaa wóor euh. des fois sax daf may dal nii de. Ah. waaw daf may dal man dama bëgg ndox su ma yeewu fajar foog mu naan des fois yeewu fajar rek jubal ci frigo bi mu fàtte ne dañuy nit ñi dañoo wóor. léegi après. Ah, waaw après da ngay fàttaliku mais dégg naa loolu yàqul koor de. <laughs> oustaz bi dina ci xam naa kon hmm. euh, mais loolu après hmm. kon sa koor yu bari da fàtte. non du chaque jour du régulièrement xam nga weeru koor boo demee ba wooru une semaine après sa yaram day miin koor gi. mais premier jour yi day métti premier jour yi nga xëy tàmmoon xëy naan ndox ndékki añ léegi nga toog ay fan yoom na defoo loolu des fois di xam nga soo rombee genre booy say dëy du woor de fajar lay dem ci mayga bi nekk suñ koñ foofu mayga bi moog booy say ay longoo lañ fa laa koy romb mu ndékki des fois nga romb ko sa xel nekk ci ndékki mais boo dugg see nii di nga bëgg a ndékki mais après da ngay toog nga xalaat waa nga ne ñu ngi ci weeru koor waaw. Boy Seye du woor de. kañ. waaw. Ah. waa daan naa ko def mais dañ ma cee mus a jàpp nag. non dama demoon benn gaale copain quoi fekk xam nga rek mu tiim bool dof bi nii mu fëgg ci nag ndekete ceeb bi tax na sama fii moom mu bàyyi ma ci biir. Ah waaw mu ñëw si gaale di deedeelu ah. maire bi ne ma yow lii daa mel ni ceeb la de. xamatuma ah. lu ma koy wax. ma ne ko ceeb la kay. Ah. waaw. daan naa ko def lu bëree bëri dem naa ba xàmmee sax di woor wooru gaale. man moom lu ma la lu ma la mën a Fatima man benn défaut la am sama aduna. Mm-hmm. muy xiif bokkul ci man. man kay ëllëg bu ma duggee àjjana biir bee ma fay dugal. <laughs> xiif moom ñemewu ma ko moom wax dëgg na yaa ñemewu koor de. waaw. kon koor gi moom ni ko nit ñi di gàttandoo ni ma koy gàttandoo moom du benn. non man damay triste. yow xam nga xëy ndekki ni muy def ci nit. dafa garaaw. wallaahi. kon doo gunge wee. Hmm? seet si ma woon <coughs> gunge. mukk duma ko gàttandu duma ko gunge. Ah. mukk. ibaadu yi ñoom lay àndal korité ñoom bu ñu waaw ñoom bu ñuy gis weer bi ma koy gis xanaa du ay nit ah waaw loolu moom du ma la ko nëbb moom. Ah. torop dama ko ragal torop du man kese de. mbër yi cent pour cent bi yëpp du woor presque. bari na ci de. bari na ci mbëri ñu dul woor ah xam naa fi mbëri yu bari yoo xam ne du ma toog fi sax di leen lim ay gaskel mm-hmm. ñooñu du ñu woor xalaatuñ ko sax mm-hmm. ñooñu woor. xalaatuñ ko sax. waaw jàng naa tuuti rek de. waaw fooy jàngee furul daara nag Fatima. jaar naa ci waaw tuuti rek. mais jaaruma comme demoon nekk taalibe nii de. dama nekkoon tout tànk xam nga ñu dugal ñu ci benn daara Oustaz Saliou. maa ngi koy nuyu au passage bu baax a baax. fële ci benn tali xam nga. waaw comme xale yëpp. jaar nañ daara jàng nañ tuuti waaw. Hmm. non lan moom fa génnee sax. que lu ñu jógee benn tari doxu si Kër Massar tamit waaw parce que Kër Massar ñu ngi fi bëgg a yàggu quoi. jënd benn saar léegi dama lay taril saar boo xamante ne. sama mbokku mbëri ñu ci bëri mënuñu ko. muy xul waa yow kaafiruun. léegi après kon yaa ngi defee yeneen bëri waaw. Ah. dama doon defee ah gars yi ay falaxet rek lañ mun de xul wala yooyu rek lañ mun. waaw auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim qul yaa ayyuhal kaafiruuna laa a'budu maa ta'buduuna wala antum aabiduuna maa ana aabidun maa abadtum wala antum aabiduuna maa a'budu lakum diinukum waliya diin après suñu oustaz Bass dina doon wax Saal Saal boobu Maxam Jokalante li mu ci wax noonu war na war na moom la tey loolu noonu. tey Jokalante. parfois dañ ne nul n'est parfait kenn matul. bi bari ñu ne Bass jamono fi mu dañuy jaamu yàlla. Mhm. est-ce que yàlla ah, ci ay circonstances. nga war a mhm. jaamu. Mhm. wala nga am problème si nga war a jaamu. ñu waa Fatima xam nit ñi dañoo fàtte seen mission ci kaw suuf parce que avant ñoo wàcc fii nii dafa am lu ñu signé woon ak borom bi. maanaam bu ñu wàccee fii duñ jaamu beneen buur bu dul moom. yaa ma dégg ñun loolu lañ signé woon ak yàlla kon loolu moo ñu fi wàccee ku ko def loolu moo la war ku ko deful moo la war amul circonstance parce que dañu ñu julli même boo feebaree sax fi nga tëdd war nga fa mën a julli kon wàccul kenn jaamu yàlla nag du julli kese jaamu yàlla bari na mais nit ki daal tànk suluñ la ci biir suuf da nga war a jaamu yàlla pour man ak lu mu munti xew. chaque jour. chaque jour que Dieu fait chaque instant da nga war di jaamu yàlla ñun loolooy suñu mission yàlla namul ci ñun leneen lu dul loolu ñu jaamu ko mu xam grandeur am xam ne moom mooy yàlla loolu kese la amul secret dañoo war a jaamu yàlla ku mu munti doon muy chrétien bi muy jullit bi loolooy suñu mission fii jaamu yàlla kese fii leneen indiwuñu fi dara indiwuñu fi lu dul jaamu yàlla leneen li ñu def yëpp ñun ñoo ko boole ci affaire rek mais du yoon Jokal Fatick nekk koo xam ne dañuy dañu ko seet si kër Moussa fas yéene waxtaan ak moom. mbër. gëmm bi pour lan. dama gëmm. waaw yaa ngi gëmm bu baax. demal. Jokal bu Fatick ñu fekk ko fii ci kër Moussa gis ngeen mbër ak diine lañu nee na leen à chaque fois dañuy génn foo xamante ni ak nga génn foo xamante ni day ñu fay seetlu parce que lii dafa bokk li nga xamante ni moom moo ci doon ak ñun ñu ngi wax ak yéen kon li ma koy waxee ay xale lañu xam nga moom moo ñu. mais dañu def lépp loo xamante ni moom lañ moom rien que pour vous faire plaisir changer plat yi quoi ndax nee naa nit ki moo toog topp sax ci ceeb bi di lekk il faut que tamit ñun ñu leen ñii parce que ñoom tamit après tout ay nit lañ am na lu bari lañ ko def mais tamit bu ko bëggee tënk ci mbër mi mbër mi rek day xaw a day xaw a kii daal en ah, jóge. waaw noonu la demee. Ah, mm. waaw xam nga mbër mi sax daa yàggul benn temps la ak benn temps bi ngay amee doole ba bi ñu demee ba ñu naan diwul jeexal na maanaam tey jii dañ koy jël ci vingt ans ba quarante cinq ans vingt cinq ans de. kii la de carrière waaw te nit bu dee da ngay liggéey nekk fonctionnaire 60 ans ngay retraité kon làmb yaagul moo gën a tuuti carrière ci liggéey boo mënti gis parce que liggéey la aussi kon boo ci nekkee tamit waru mën a tere def la nga xamante ne mooy sa devoir la nga xamante ne nga ko doon def avant te da nga koy def après pour man làmb waru ko mën a tere def daal waaw. waaw koor gi comme ni ko ñëpp di dundee danaa xëy liggéey nag man man moom presque li may toog sax bëriwul avant ndogu ma ñibbisi ndogu ak sama njaboot. naa fi la xam nga reer waxtaan lido waaw. loolu day yàq koor nañu. non guddi gi nu mu yàqee koor teg ataaya. waaw ma dogee pare waaw. benn man moom dama bëgg lekkantu. man su ma ndogoo moom ba may tëdd damay lekk rek. waaw. dina xëdd. Mm. Mm. du ma xëdd wax dëgg na yàlla.

non non combat boobu noonu Kéba moo ko jëloon mu ma fekkoon dëkk bu ñuy wax fële jam si la ma lal ni bay waaj a ngemb waaw ci la ma benn mu fay moto borom moto bi ñëw ne ma kaay wuyu sa ma ne ko kan mu ne ma Kéba ma def noonu lemaat samay bagage dem ma ñëw mu waaw bëri dem dugg naa regroupement ba génn daw ma sax suñu gaale bu bari ba pare te daw ma sax sama gaale. waaw. Jokalante mhm. laa nekkoon waaw. Mhm. pourtant non non sax. Fatick circonstance moom fa yóbbu woon. seeti samay mbokk parce que samay mbokk yëpp Fatick lañ dëkk. xam nga lu ma la wax. waaw seeti samay mbokk dem fekk gaay di dund làmb boobu nekkuma sax mbër. dem fekk gaay di dugg dund làmb benn jour. ñu dem seetaane làmb escale ñi dëkk Fatick xam nañ li may wax. bi demee ñu bëgg a dugg amuñu xaas gars yi nag ñu mën a leen bàyyi leen ma ngemb moom laa def dugg ci biir làmb ji ngemb ànd ak ñetti nit ñi ma ñi ma noonu satala lañ àbboon satala. satala lañ abu def ci ndox looloo nekkoon ci mukaay bi. ñu dem ma bëre ba demi final benn mbër mu ngi bëri arène sax. Bira la tudd Bira. mu ngi nekk écurie côté Pikine yooyu noonu la nekk. seetaan naa ko mu bëre aren kooku moom wax daan demi final. te caaxaan moom fa dugaloon par la suite nag trois personnes yooyu ma àndaloon kenn ki maam tuut lañ koy wax mu ne ma gaan yow la ñoo yëpp te ñuy dàquñ laa bëre làmb bu amee daf may wër dama ko doon laaxatu sax ba noonu ma commencé mais soo demee ba naru ci rek ba lekk xaalisu làmb jour bi ma ko lekkee nag laa tëdd waxtaan ak sama njëganaay ma ne man mii damay fontu man liggéey yi may liggéey nii làmb moo leen gën a làmb a gaaw waaw ci laa commencé nag jël ko au sérieux mais début bi moom dama ko jàppee woon ay caaxaan rek waaw. daan naa mbapat ci lutte simple. simple bu baax. waaw mbër yi ma nekkaloon lutte simple nag bariwul ñi ma ñi nga xamante ne gis naa leen ci parce que suñu problème séeréer si mooy ku ci am soxna rek wala nga nekk taaw da ngay gaaw bàyyi làmb waaw en tout cas Jordan bu mbuur bi bari arène nii Jordan moom daan naa ko gis xam nga pakala boobu mu ngi def poids lourd man maa ngi def raw gàddu la bu mbuur mii nii ak mbër yu mag yi nga xamante ne daal ñu ngi doon ay kii Zarko Zarko bi muy ñëw gànjaay at bi muy ñëw gànjaay boobu man maa jël lese waaw yooyu noonu daal. waaw bu baax. fi ma mbabatee bëri na da ngay dem Fatick nga def micro trottoir wala nga dem Gandiaye ak si boobu noonu ci ginnaaw. ah waaw mooy yow yaa laajte kay ba Kër Masaar bi sax mbabat naa fi la boo laajal mbëri fi nekk Kër Masaar. Hmm. Kër Masaar mosuma fi daanu mbabat. yan mbëri siiw ngay dégg fii nii xaarim xaarim ngom bi dem rakku Eumeu Sène. xaarim ngom xaarim ngom rakam la. xaaral ok mooy borom góor sax yooyu. kooku bokk nañ fii tournoi fii. Mansour Diop moo ko organisé woon fii moom mu ngi dëkk fii kii. tournoi yooyu noonu man maa bëre ba dem final gars yi toj làmb ji. waaw xaarim ngoom ñoo ñëpp ci biir mbapat bi lañ ñoom mbëri siiw nga ma laajte quoi mbëri gars yi xam. Mhm. mais est ce que bëri na mbëri yoo xamante ne tey siiw nañ ñu ngi lëmbee làmb mbapat. waaw mais mbëri yooyu noonu est ce que bëri nañ mbapat. ok ah. mbëri yooyu mbëri siiw yi ngay wax ne est ce que bëri nañ mbapat. loolu dama la déggoo est-ce que moom dama siiw waaw daan nga ma ne la gisaguma ko wax dëgg na yàlla tey boo yi nga xamante ne yàlla dogal na ñu ngi leen di dégg arène boo yu bari koo leen soo leen laajee ndax mbapat nga bëriwul de. waaw xëy na toju ma xam nga tey jii man moom est toj naa wala. tojuma moom loolu du man maay toog fi di ko expliquer. mais tey euh, Jokalante tey hmm. bu ma nee sa mbapat hmm. hmm. sa mbapat est que la. loolu am na sa mbapat. waaw man man mbër yi nga xamante ne dama bëri ak ñoom mbapat ñu siiw. ñooñu yàlla dafa dogal bëriwuñu arène. ok tontu naa de. yàlla dafa dogal man ñi ma bokkal génération arène yaa ngi dégg menum men menum booy bawol laa ci doon gis ci àll bi ñuy daja di compétir ci àll bi booy bawol mu ñuy seetaan menum booy bawol moo ci doon wàcc si ci àll bi loolu mbër yu bari mun nañ ko ko seedal waaw mais ñeneen ñi amaana arène xam nga affaire u Dakar la noonu la demee quoi mais àll bi moom àll ba la woon tamit tey yu ñooñu est-ce daan nañ am temps ñëw ci àll ba loolooy problème bi comme léegi làmb ni mu développé tey ji mbëru Dakar yi di wàcc ci àll beeg yooyu noonu. loolu boobu amuloon loolu yàggul tamit làmb bi mu kii rëg-rëg sax moo gën a motiver mbër yu bëri ñu commencé dugg ci la àll bi te rëg-rëg yàgg na ci àll bi man ba may xam rëg-rëg nekkul nii nii bu mu siwee nii waaw. Hmm. Ah, wax de. leer laa la wax dama ko doon dañ doon dugg ci làmb moom muy bëre poids man ma nekk raw wala poussière. lu leer laa la bëri naa ay ndangaan sàmboog fu ne waaw. 2011 le juillet jour combat Papa Sow Nes. waaw. Papa Sow Nes laa bëri arène. non non. parce que boobu mënoo koo xam sax. boobu da ngay rêvé da nga doon rêvé bëri arène quoi. nootal cachet bi parce que boobu tam amoon naa jàppale ba nga xamante ne est-ce que liñ ma fay liñ ci def ëpp ëpp ko waaw. maa daan. waaw. waaw après ma continuer teg la ay victoire teg la ay victoire xam nga yàlla dogal ma ñam defet Farouz moo ma humilier moo ma daan parce que boobu xaw ma daanu. boobu maa ngi daan jogel jogel forus boobu xaw ma ko parce que boobu damaa bëri commissaire commissaire bu tëngëj coow li bëri xam nga succès bi ak affaire yooyu noonu ma xëy Assane Ndiaye moo organisé woon combat su ma jugoon jour dafa fekk sax ma jóge entraînement ma téléphone ne ma forus laa bëggoon jox ne ko kan mooy kooku ndekete boobu forus daan na boo yëpp waaw forus ma préparé ko comme ni ma doon préparé yeneen combat yi wallaahi azim boobu xaw ma ko barke Serigne Saliou waaw ma jël avance mu daan ma. ñu maag Farouz daf ma njëkk a ndox ndoomo nag ma génn ci. saat saat bi yëpp jóg taxaw parce que boobu Farouz ay mbokkam sax ne nañ kii nga jël waroo woon jël. temps dama xew dama amoon doole. dama mën a bëre damaa xewoon waaw. xam nga man daal Farouz ba mooy pëtoxlu sax yóbbu ma ko mu waraat ma moo daan ma ko waaw mënuma ko woon digérer nag parce que xam nga rek. boo ñëwee sa waaw boobu ñaata victoire la na ma sax ñaata victoire laata parce que man saison bi dana na ci bëri ay quatre fois. Mm-hmm. waaw. la jël Kéba mu ngi fi. Uh-huh. waaw. ma jël furus daanu. Mm-hmm. ba ma wëree ndoom ma xam ne caaf xam na. Mm-hmm. waaw. ba ma njëkkee wër ndoom dama ci génn. ñu jàkkaarloo waat. bëriwaat bëriwaat mu jéegi jéegi bëtaat ma. waaw ma jóge foofu jël Paul Maurice Paul Maurice maa ngi ko jëlee biir Fatick. waaw Paul gënu ma ko gënu ma ko dëkk Fatick moom mu ngi dëkk Bikol maa ngi dëkk Fatick. Sidi Jaxate waaw Sidi Jaxate moo ko tëggoon. combat boobu ñu bëre 38 minutes. waaw. Paul daan ma ma teg la deux défaites. mu métti trop nag. waaw. kay naan kii du mbër kii du xam nga too daanoo yooyu da koy dégg quoi. kii du mbër kii waaw da doon liggéey nit ñi ngay dégg xam nga rek yooyu noonu da koy dégg quoi waaw mënatuma ko digérer ma damay ah aju làmb quoi mu delluwaat ci àll bi commencé compétiraat compétiraat ndàng-ndàng di compétiraat bu amaat repère ci laa jël ñax jëriñu nag. waaw. waaw. ñax daan naa ko mooy d'une minute. mosoo ko seetaan. ganoo yow gan nga ci làmb